fii ñu nekk nii nag muy cité Alia Diène nekk fii ci Ndakaaru fii nag soo fi ñëwee da fiy fekk ay jigéen ñu bari jóge ci ay gox yu bari ci biir réew mi ñëw rekk ngir mën a daan seen doole waaye nag jàpp na ni liggéey gi luñ ci nemmeeku ci ay jafe-jafe daanaka bari na ndaxte léeg dañ ciy jànkonteel tax nag ñuy rek joxuñ baaraama tuuma boroom kër yi ñu jàpp ni lépp luy njaag rek ñoo mooy njaag ndaxte métit bu nekk dañ koy dund ci yilee kër ñu bëgg daal ñu daal di leen di respecté ndaxte Sénégal réewum jàmm la waaye tam réewum orma la man lu sama liggéey may liggéey ménage mm. togg mm. mais patron yu compliqué laa am suñ jafe-jafe dañ ñuy ber mm-hmm. bu ñuy toggee ba pare bu ñu reeree ba pare mais desit la ñuy jox ñun desit daal la ñuy lekk ndax ñun desit lañu yellool non non ñun dañuy liggéey dañ mi daan doole jànk ne mbaam patron yi laay ñaanaat ñu jàppee ñu ñun kon suñu bopp ñun ñu jàppee leen patron ñun ñu jàppee ñu comme suñu doom loo xam ne doo ko def sa doom bul ko def doomu jàmbur ndax àdduna dafa tëradi àdduna dafa doy waar mën nañoo sant feneen feneen foo xam ne seen doom bu ñu génnee dinañ am tolof tolof ñuy laaj suñu yaay lan lañ def fekk ne dañoo tooñ doomu jàmbur parce que nit du ñëpp ngay laal nit du ñëpp ngay laal mën nga laal koo xam ne dala ëpp doole man loolu laay am lu may wax. dama ko dund dañ ma ko def maanaam ber man bañu ko ma ber mais looy lekk nañ ñu ko jox ñu koy lekk mais reer ba mu des du ñu ko jox wala añ ba des du ñu ko jox. ndekki sokolaa amul bër amul dara amul loolu laay bañ loolu moo nekk sama déliance. waa am na ba tey ndax tey man duma ma jugeel kenn man sama bopp laa xam man ni ma mel damaa yaakaar ne jànk yëpp moom lañ mel ñun daal ñun jànk yi ñoo war a doon benn ñu xeex ñun ñun ñu xeex ñun suñu bopp jëm bopp patron yi nag moom ñoom noonu lañ mel. góor ñeeg jigéen ñi parce que jigéen yiliful kër góor ñi ñoom ñoo fu kër góor ni mu doxalee ci kër rek noonu la jabaram gis defe naa ne bu bu ñu beroon seen jëkkër na leen bu leen ko ber defe naa loolu yëpp du am loolu daa jàpp man waaw dinañ am fu ñuy ñun bu ñuy dem dinañ ut agence boo xam ne moo ñu utal liggéey mais bu ñu amee problème ci agence boobu lañ man fi may liggéey arrêté naa fa mais laaju ma ko sama xaar aw ma leen lu may wax moom tontu laaj moo fi yóbbu moom laa koy ñëw pour mu wax mu woo ko téléphone mu envoyé ma sama xaalis non matal ma fa weer mm. am naa fa fukki fan ak ñaar mais dama ne damay damay muñ ba weer bi dee mais damaa muñ ba munatu maa muñ tey laa arrêté. da ngay dem ci kër ñu di la xeeb duñ la tudd duñ la taas yenn saa yi sax dañ lay yoral xaas pour nga jot ko problème la ñu lay romb comme ñuy romb xaj mel ni ñëw la gën te fii ngëneel amu fi ñun ñëpp dañuy daan suñu doole nit da lay yoral xaas di la dawloo yaa ngi dégg te liggéey foo xam nga ne lu metti la. waaye dañoo bañ a def lu bon ñun nag man moom loolu rek mooy sama problème fay gi du demee noonu. yaa ngi dégg mun nga dem sax ba pour nga jot sa problème lay doon te liñ lay dañ da ngay fóot ñu dox ñu ba ngeen waxaale ba pare ñu jël ay yére yokkaat ko ci. soo waxee ñu ne yére yi noonu la toll te yow mënoo ci dara ndax yokk nañ ko ba pare te kenn mënoo xàmmee yére te lañ la war a fay duñ la ko fay loolu mooy sama problème. da nga koy waxaale ba pare ba ngeen juboo ci ci kàddu. maa nit loo wax ak moom ba pare doo ci waroo cee tegaat leneen nit da ngay respecté sa kàddu lu ñu la wax ak li ñuy def du doon benn yaa ngi dégg. day leen saa yi di nga gis ka xam ne dala jël tibbal tibbal la ci boolu kawsu te boolu kawsu yow mu ci dul lekke bu waroo koo jox nit mu di ci lekk ndax boolu kawsu nekkul lu lu lu lu nga di ko jox nit mu di ko lekk ndax yow lekkoo ci. dañ koy noppee noonu te xam ne xëy na liggéey bi la waan tamit man dinaa leen duma lekk ci boolu kawsu su yeboo jour boobu ma bañ a añ jëndi sama añ waa duma lekk ci boolu kawsu waaw ndax moom ma fa nekk du lekk ci boolu kawsu kon ma it gënuma lu tax may jël boolu kawsu di ci lekk noonu la demee. déedéet dañuy yendu rek ngoon jot soo paree nga dem ñibbi te fay gi baaxul. ñu jàppale ñu rek ñu jàppale ñu teg ñu fu ñu war a teg te fay gi baax ndax liggéey dafa metti te nit su lay liggéey danga koy jox àqam. loolu rek laa ci am lu may wax. saa yu ma koy damay wàcc jaar fi toog fi waxtaan bu yenn heure yi ma dem tëri. waaw affaire bi métti na trop métti na seen côté trop parce que yenn jànk yi dañ leen di maltraité ci biir kër yi waaw ay kii yoo xamante daal rafetul quoi nit ki moom lépp dul def sa sa sa njaboot bu ko def njabootu keneen waaw parce ñu ñun ñëpp ñoo yem si yàlla voilà dafa am ñoo xam ne dañ leen di jël fii yóbbu leen ci gaale ñi fi ñu di leen liggéeyloo di leen maltraité ci kii di leen jox ay ñam yu fanaan di leen def yoo xamante ne daal rafetul daal ci ci jullit vraiment ñaawlu naa ko trop parce que jullit wartul méttital jullitu moroomam voilà maa ngi koy ñaawlu trop waaw su ma sañoon moom dinañ ko jàppale dinañ leen jàppale trop jàppale jànk yi waaw xam nga ñëpp yemuñu quoi des fois ñu akisi jànk yi loo xam ne defuñ ko des fois aussi ñu accusé leen loo xam ne ñoom ñoo ko def quoi. ca beneen wàll ga ki nga xamante ni moo leen di joxe maanaam seeni courtier moom it di rek daal di yëkkati ay kàddu jëm la ci lu ni mel mu jàpp ni jànk yi nga xamante ni daal da leen di joxe daanaka ay jafe-jafe képp lañuy ñuy dund ci biir kër yi ndaxte amul benn respect bi nga xamante ni jox nañ leen ko rawatina ci wàllum nekkin gi ci bërëb bu ñuy liggéey maanaam ci biir kër yi. mu rek daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci askan wi waaye tam nguur bi mu gën leen ci bàyyi xel. man samay jànk ku ci ñëw dama la laaj sa photocopier waaw mu teg beneen bi waaw damay jël photocopier mais mu teg benn bi patron bi yoroo ko bu dee dafa am bu dee photo dafa photocopier sam portable la ko photo benn bi patron mi ma awaay ko mu yor ko ma ne ma yore ko waaw di ko ne liggéey waaye leen jàppe ci biir kër gi. des na ba léegi non ko du ma fa yegg ñoom jànq bi ci boppam mooy wax patron bi salaire bi ba fi ñu déggoo bu ñu d'accord mu xam bés bi mu commencé ñu xam après ñu ko ne liggéey bu dee patron moo jékki-jékki dakka ko da koy fey ci changé balaa mu dem waaye bu dee jànq bi moo jékki-jékki bayil boppam boo ko waxee bu weer dee la lay fay weer dee la koy fay ndax moo bayil boppam waaw man moom côté patron yi toujours ñu ngi ciy am jafe ndax jànk yi day ñëw mu ne ma ah man dañ may ber toujours dañ may ber waaw dañuy lekk ba pare mbaa ñu des jox leen ay desit waaw mbaa ñu xëy jox leen mburu fukki dërëm kese du am luñ leen jox boor luñ leen jox dañuy wàcc dem ci biti ba dem jënd jël seen xaalis jënd boor mbaa ñu jënd luñ ci diw waaw léeg-léeg pare moo leen lu tax ngeen di jënd ay diw lu ngeen diw ci seen mburu soxla am na ñu am ñaama ne séeréer ñoo bëgg soxla soxla moom carrément nit ku baax nag war ba kiiwul daal baaxul ci boñ day yàqat boñ waaw bu dem bu dem mun na ko jox muy jox doomam yi na ko jox bu dem munu ko mu nag munu mu bay ko mu doomu jàmbur mu dem wuti feneen mu dem wuti keneen waaw. bari na bari na toujours dañu koy ñëw ñu mu koy nettali ñu ne ma ah man bu ma fa nekkee dañ may beer ak nii man damay dem ba gëstu affaire bi mbaa bu kooku bàyyi ma jël beneen jànkam yóbbu ko fa. même cas bi rek la may waxaat encore ma xam ne kii carrément am na pato yaa ñu ngi fii ci site Alia Diène bi. ñooñu mu ñu fexe leen jox njàng. Mm-hmm. waaw ndax man dama dem ba gisal sama bopp. Mm-hmm. man li ñu wax dafa am. Mm-hmm. dañ leen di ber. waaw. waaw ñu ngi fanaan ci waañu mbaa fanaan leen ci biir saal bi ñu leen ah dañuy seetaan télé jànk mi fa lay toog ñoom seetaan télé bi heure bu leen nekk bay deux heures ñu soog a tëdd jànk bi tëdd cinq heures ñu yee leen ñu leen ah jogal sanga xale yi ñu ne eh, ndee la kaay xale yi dañuy dem école nga sàng leen boo paree nga dem jëndi mburu bitig ba ñëwaat nga yóbbu leen école nga ñëwaat nga taaw ci seddaay bi de ci kaw tali bi ba oto bi ñëw jël leen ba oto bi ñëw bu leen oto bi jëlee yóbbu leen école yow nga ñibbi si commencé waat kon ne ngay liggéey fekk yow nga cinq si six heures sept heures yaa ngi liggéey ba yàgg mu ne la eh la kaay dem ci bitig bi nga jëndal ma mburu dem jënd mburu ñëwaat nga commencé mu ne eh ndee la kaay dem jëndal ma boor ak suukar nga ñëwaat kuma waaw bëri na ci yónni yónni yu sew sew yooyu loo xam ne yow mun nga ko yónni benn yoon yónni ko benn yoon mu jeex waaye nga ko ay yónni yu sew sewaan yoo nga tarde liggéeyam bu ñëwee nga ne a ah, yow su liggéey bi tarde na añ bi guddee na fekk du ci moom de yow yaa ko teg yow muy patron bi yow yow yaa teg mm-hmm. waaw patron yi man loolu métti nam ba ci kanam yàlla gouvernement ji boppam moo ci war a taxaw nag te gouvernement bi mu ngi sàgg ne mbindaan yi lu yeneen lay wax waaye wax ba léegi mosuma dëgg benn góor ma taxaw wax ci affaire bon waaw nañ leen jàppale yàlla nañ leen bay xel waaw ñiy liggéey ci kër nañ leen bay xel ndax bu tabaski jotee tey xam nga jànk yëpp dañuy ñibbi bu tabaski am nga tabaski mu jànk yëpp ñibbee patron si ci lañu soog a xam wulóor jànk waaye ba léegi ñoom ba léegi def ñu ko waaye bu ñibbi ñibbisee encore dañ leen def jaam loolu nag bëgg naa jànk ñoom ñëpp ñu am ci fulla am ci fay ñu taxaw ci. waaw bu boobaa bu dee ñun suñu bopp ñoom ñoo tooñ jànk bi dañ ci taxaw waaw bu dee jànk bi dañ ko tooñ ñun dañ ko dox ba ñu xam fan la tooñ bi mujjee waaw li dañ koy régler incha allah rabbi ndax ah, am na jànk bu fi nekk barke dem ma ko joxe wu ma ko waaye ker dafay ñëw mu ne ma patron bi dafa jékki-jékki weer wi dee war ko fay fay ko de mu ne ah da ngaa sàcc sama jaaru or mu door ko ci xaaju guddi ay déedéet matin moom ak papam ñoo ko sot ñu koy sotloo ñu koy dóor bañ ko gaañ bi mu ñëwee suba teel mu wax ma ko ma ne ko demal Philippe Senghor nga defar lu certificat médical ka dem foire kon force dañ koy jël si mu fay la sa xaalis dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax waaw dañ ciy bàyyi xel waaw jànq yi dañ leen koy jéeñ waaye du ci ñoom am na ñoo xamante ni jànq bu jaar ci arage ñemul sàcc ndax xam naa papier yëpp ñu ngi foofu boo sàccee doo raw waaw munoo raw ndax sa papier ñu ngi foofu ab bërëb bi nga xamante ni daanaka xale jigéen yu bari foofu lañuy ñu daal di daje ngir rek daal di wut ku leen di jox ab liggéey waaye nag soo leen xoolee rek nga xam ni dañoo rekk daal di sonn ci mbir ma ndaxte ku nekk su loo waxee rek jafe-jafe yu muy ci yilee kër des koy métit lu bu baax a baax tax nag jamono ji bëgg nañu rek ñu daal di leen rek considérer defaat leen comme seeni doom ci biir kër yi ndaxte ñoom it dañuy rek wut lu ñu am ngir mën ko yóbbu seeni kër bañ tam rek def loo xam ne nekkul lu baax